وارحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi di leen nuyuwaat bu baax di leen jaar yéen ñuy béggee sur wasaare lamb wasaare TV di bégg nag képp koo xamante ni rek yaa ngi am contentement si ñun am kóolute si kon niñ koy defee rek diine ak mbër tey nag euh, ñu ñëw fii ci euh, mën nañoo wax ni ci Malika ñu seet si un champion boo xamante ni mu nekk koo xamante ni doon lutte simple ñu avec frappe. muy préparé combat moom ak ki nga xam te ne moom mooy fils de Balla muy général bu Malika moom lañ si nag diina ak mbër mi ngi ci këram laajte nañ ko ñooñ ñu ci kaw dañoo yéeg nag ci kaw instant bi néeg bii ñu jàkkaarloo fa la nekk xamuñu day nelaw xamuñu day seetantere xamuñu day play dañuy dugg bas xool lu muy def bas topp ma ñu dugg ziar général bu Malika général bu Malika mi ngi nii bas di seetaan li nga xamante ni moom mooy teleem takk ay écouteur am mbër ak diine ñu fas yéene waxtaan ak moom mais c'est ci loolu ne. booy ñëw doo tàggoo. maa maa ngi sant bu wér man da ngaa xaw a ragal koor ak bëti nu mu suuloo. koor gi de moom amul ku ko ñeme est-ce que na ñu ko ñeme <laughs> rawatina mbër yi nag <laughs> waaw koor gi moom mooy loolu. waaw waaw sant ah sant comme instant bi moom fi mi toll moom mooy loolu noonu. Mhm. bu ñu xëyee rek nekk ci suñu bopp yaa a gën a xam toog xama a waaw bañ a tooñ kenn daal. Ah. mooy loolu yaa yaa ma gën a xam. waaw jàkkaarloog sama télé di mhm. mooy waaw yaa ma gën a xam xam nga koor daa métti ñun bëri. Mhm. ñi ko ñeme daal bëriwul. waaw yaa ma gën a xam. non damay woor nag franchement parler quoi damay woor noonu non pas wooru gaale woor normal loolu dama ko tàmm dib damay xale. doon mbër dafa war a mën a tax kenn du wor hmm. ah waaw hmm. ah, nañ bàyyi yooyu waaye damay war de <laughs> général bu Malika noonu lañuy ñu nuyoo ak moom bas ah, dañuy kii nag ah, waxtaan ak moom mbër ak diine la ñu wax fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ne moom mooy diine bi dugg nag ci li nga xamante ni moom la jëmmal combat am ak Fils de Balla la aca bas ñu ak général aca Bassirou euh, général bu Malika ñu fekk si ko nag gis ngeen nag ni ñu duggee ak moom dañuy ñëw dugg fekk ko muy seetaan télé xaw ma dee dàqaare ko moom nag nee na nii la def rek relax mbër. Fatma Dia waaw <laughs> ah yaa ngi ci jàmm daal. santat bu baax. ni nga ko ko defee ci koor gi. waaw gis nga. waa nii am na solo macha allah. Ah mhm. mbër ak diine lañu wax. général euh, koor gi. instant bi neex na wala neexul. waaw sant yàlla de ndax nee nañ. nee nañ fekkee ko daaw. fekkee ko ren rek loolu ak cant la. kon dañ duñ def lu dul di sant rek amaana neex na ci ñun quoi ndax koor ngëneel yi ci nekk ak yiw yi ci nekk moom amaana foo ko natt rek weesu na ko. vraiment dañuy kontaan ci koor gi suñ ci yegg yegsee suñu xool day neex. surtout nag yi ñu doon def di bernde. joxe ndogoog affaire yooyu noonu quoi yooyu moom dañuy neex ñun vraiment. Mm-hmm. Mm-hmm. léegi ñu bari yaa ngi koy wax léegi léegi ndax nee nga koor bu ñëwee day neex mais général moom ñu expliqué tey ba nga nekkee xale nan nga daan wóoree ak ban âge nga commencé wóor. waaw ñun moom yàlla dogal na ne dañoo teel a tàmbalee woor quoi ndax moment boobu noonu ñun ak suñu groupe dañ daan jaay ku dàq woor quoi comme par exemple dañ daan xëy di werante di woor nga di wooro mm-hmm. affaire yooyu noonu à l'âge de treize ans douze ans. ñu ci werante affaire yooyu noonu xam dem ba yàlla dogal ñun commencement bi dañ daan def waru gaale mais sa waa gaale duñ ko xam da ngay dem jékki-jékki ne da ngay dàqi koor dem taxawaalu ji dem syndicat dem dox ba benn heure bi des fois nga jàdd naan doo lekk nag mais da ngay naan. Mhm. boo naanee ba sa biir fees nga ñëw sa gaale xawat booy waaj yegg tem nga ut tuuti poussière laal sa tuñ yi ñëw xaw a rey sa yaram ne da woor. Euh. mooy loolu noonu mais yàgguñ ci nag ba xawee dëgër tuuti yàlla xam na dañoo commencé di woor normal quoi. Mhm. Mhm. nan nga déggee woor parce que gars yi dañ ne ñu bari dañ dañ ne koor pour nga jégalu ci yàlla. wala pour nga am ci loo tiyaat boo xam te mënoo ko am fenn weer promotion mais loolu nga ko déggee. waaw ni ma ko déggee de man mooy yaakaar naa ñi ko ñu bari déggee quoi koor ndax li ci li ci li ci yéeme mooy ku ne xam na ni koor dañuy tëj buntu safara ubbi buntu ajana yi te ku xool melokaanu koor rek ndax dangay ngay yëg sa yaram ni am na lu xew ndax bu demee sax ba koor gi di jeex yow da ngay yëg ni lii dem nii amaana du ngëneel man ci li may seetlu ci laay gën a wér ci lay ëpp jàmm. ci laay gën a nekk ci suma bopp yàlla xam na loolu. te vraiment doon na weer wi nga xamante ne lu ci waay def doyul. mooy lu ma la wax xëy na da ngeen maa fekk sama gaale ma toog mais dama daan def teg samay café taxaw ci télé di defar ndogu su ma defaree jënd suñuy mburoog affaire yooyu noonu nekk ak suma bokk Baay Faal yi ñun ñëpp buñ joxee ndogu ba pare ci laay soog a ñëwaat suma kër ndogu julli timis soog a dem entraînement. kon loolu noonu ñuy def bañ ko tàmbalee di def benn cin bu ndaw lañ doon yor di ci def kafe di taqale man ak suma gars yi mais yàlla dogal na dem nañ ba léegi ay mbana la ñuy yor di jënd mburu bu bari di ko def kon loolu noonu yokkute la te ñu ngi ciy gis suñu bopp bu doon dañ koy def di ci dellu ginnaaw amaana ñu xooli leneen mais saa buñ ko defee luñ def ren déwén dañ koy gën a mën te en même temps nee nañ loo ci jaamu ñu fulal loo ko weer la woo xam ne weeru njéggal la weeru yërmande la weeru yokkute la da nga ciy tuub say baakaar yàlla di la ko jégal kon weer wi daal lu ci waay def lu baax doyul vraiment ak surtout fi réew mi toll. xam nga ak ak affaire yi ni mu situation yi ni mu demee ak yooyu noonu am na ñoo xamante ne dañ koy mën am ñoo am duñ ko mun di bàyyi loolu xel tamit da ci am solo ñu nit xama ñu ngi koy xool nuñ koy partagé ak ñun ñu yàlla booleel daal. Mhm. mbër bu wóor ak mbër bu ah xaw ma nag ku wóorul mais man mi nga xamante ne moom woor laay def moom vraiment. déranger wu ma quoi wax dëgg fa yàlla ndax nee naa la su fekkee kattan laay ut bu koor gi jeexee kàttan gi may am man sama bopp damay xam ne day yokk yàlla xam na loolu ndax saa bu ñu dogoo dañuy dem entraînement ki nga xam ne nag moom mu ngi sàmm kattanam wala ragal xiif ba tax du wóor kooku xëy na li tax moom du woor moom moo ko xam mais franchement parler man moom damay wóor te lépp lu ma war a def ci koor gi dama koy def amul lu may empêcher quoi. parfois kon dañuy gis yéen mbër bari nelaw rek ngeen di def. yàlla xam na ni ah man boog pas lool noonu ah damay nekk fii des fois ma nekk ci ci ginaar yi xam nga des fois tamit mooy lool noonu ma pare xam nga mënoo di joxe ndog ba pare di nelaw ba benn heure bi foo ngay teel a jóg. Hmm. génnee say bagage defar affaire yooyu noonu loolu kon mënoo am temps wu nelaw hmm. comprendre nga hmm. man mooy loolu noonu daal su fekkee tamit dañuy dañuy nelaw du demee noonu du ma ne du ma nelaw ci koor gi dinaa ci dallu ndax presque lu bëri guddi gi nga koy lijjanti dinañ ci dallu mais mooy lool noonu du demee noonu. Mm-hmm. mais général ñu gis ni ren joxe na ko amul parce que feebar balaa bi nga xamante ne moom moo fi nekk ñaan yàlla mu dem ak jàmm ak salaam. Mm-hmm. muy coronavirus bi kon ren ndogu gi nii nu nga ko fas yéene def tey. tey général ah noonu la demee déggoo li ma la wax danga maa ñëw fekk ni ma toog te gi dama daan nekk samp ci télé bi nekk ci sama yi di joxe ndogu mais maanaam lu ci nekk rek waaw nañ ko nañ ko jox lim moom. comme tey jii nii yéene bi ñu doon am di ko def. ñàkkul ne buñ génnee suñ buntu kër dina am ñoo xamante ne dinañ woor ba ngoon jot te duñ mën ndogu. ñooñu kuñ ci mën a defal te yàlla tax dañ koy def. suñu suñu ñi nga xamante ne suñuy dëkkandoo lañ lépp lu ñu yor suñ ko mënee partager ak ñoom dañ koy partager ak ñoom te yàlla rek tax donte fi situation yi toll ku ne gis na ko quoi mais mais sant yàlla xam nañ ni affaire yi moom mooy loolu noonu. waaw. nit ku wóor la war a lan la war a comporter. nit ku wóor bi ci jiitu mooy maandu maandu jox koor gi lim yolool ndax nee nañ la koor say bët dafa war a wóor say làmmiñ dafa war a wóor say tànk dafa war a wóor. sa gémmiñ dafa war a woor say cër yëpp dafa war a woor kon boo maandoo rek xëy nga mun ngaa mucc ci loolu noonu ndax tey jii nii koor àndut ak wax lu sa yoon nekkul koor àndut ak dugg lu sa yoon nekkul vraiment moo tax ñun daal mooy loolu noonu noonu lañ koy dundee toog jàpp suñu ñaambur booru ndogu jotee comme niñ koy defee génn ci télé bi partagé comme instant bi mooy loolu moo tax nga fekk suñu kër ñu toog mm-hmm. gérer ko nekk suñu bopp buñ mënee di waaw di di jullit di def suñuy. weer rek affaire yooyu noonu du ci du ci ñàkk. Mhm. jàngal alxuraan. tuuti rek pas tellement. Mhm. timis ñaata laaka la. timis mhm. nga ñoo benn aay boo xam te lu ci ëpp da koy utiliser da koy tari. waaw ah, man moom lu ëpp lu may utiliser ayatul kursi la quoi ndax dafa am ay ngëneel yu rëy yu ci nekk yoo xamante ne ñun xam nañ ci dara. waaw ndax di fu ñu jëm daal ñu ngi ànd ak moom ayatul kursi. waaw. Mhm. waaw mel gaay ayatul kursi ndax ñun ñi nga xamante ni kii wu ñu sax ñu. bismillaahi rahmaani rahiim. Mhm. allahu laa ilaaha illaa huwal xayyul laa ta'uuduhu sinatun wa laa nawmun lahu maa fi samaawaati wa maa fi ardi. Mhm. man yazii yasma'u indahu illaa bi iznihi ya'lamu maa bayna aydihim bi shay'in min ilmihi illaa bimaa shaa'a maa fi ardi wa laa yaquuduhu irzuhumaa wa huwal aliyyul macha allah mais man man man mais man bëri man man ñii dañ maa commencé jaaxalal ah. mais sax xam nga ñii dañ lakk ñu bari Basiru ah. mais ay jullit lañ tamit. surtout booy nii. non ay jullit lañ li ëpp solo mooy jullit yaakaar naa ni li jiitu mooy xam sa diine jàng yaakaar naa ni suñu waajur def nañ ko ci ñun. comprendre nga nekk mbër nag du tee nga xam li la warloog suñ borom souvent damay dégg gars yi di ko wax dañ lay gis sax ngay julli ñu naan xanaa mbër français nga xanaa yow xanaa doo mbër may leen kon yéen kon mbër warul julli quoi man affaire boobu daf may jaaxal yàlla xam na loolu des fois wax di jot nga rek di ko julli ñi nga xam ne seq nañ ko yow dañ lay mbalak sa waaye kon mbër da ngay julli. leen nag après attention ñun foo ñu taxaw laaj kon mbër lan la quoi ba tax mbër bu déggee ne day julli ñu naan ko mbër nag da ngay julli. yooyu noonu mooy loolu quoi vraiment léegi léegi nii rek ba ngeen avant ngeen di ñëw loolu laa doon wax damay dama doon presque dama doon waajal tàkkusaan bi nii ngeen yegg si. mooy loolu noonu. Mhm. pour yéen ñuy suivre sur Wassare Lamb Wassare TV tey nag ñu dalal ki nga xamante ni moom mooy général bu Malika mbër ak diine lañu wax wax dëgg yàlla ayatul kursi bi nga xamante ni moom la fi tari ndax nee naa leen ah, jotaay bii rek. Ah, gëm naa ni daal comme que si koor sax lañ nekk ndax koor moom lépp lu seytaane yàlla da koy dàq waaye di baal waat ñëpp àq di baal ñëpp àq naan leen ñii kat wax dëgg yàlla amaana am na loo xamante ni euh, mbër làmb daal nagaa yi xam ne ñoom dañ cee dañ fee bokk parce que amaana ñoom li ñu xam am na ñoo xam te ni peut-être ñu ko wax dëgg yàlla ñu jëli ñëpp parce que man général sax man dafa ma bett quoi man bëri sax laay wax parce que ñoom xam nga yaa ngi leen di gis nii. armée mooy ah, mu toll nii sax. chaque àjjuma dañuy def waxtaan diine. suñu groupe whatsapp bi nga xamante ne ñu ñooy ànd di entraînement. mais ku ci nekk lu la ci réer dañ ciy toog waxtaane ko vraiment waaw armée moom it da ciy da ci da ciy bay waaram bu baax a baax ndax souvent day imposer loolu noonu bëgg gaa yi bàyyi xel comme comme diine ji bu baax a baax a baax a baax waaw. instant bi comme que ci koor lañ nekk ndax waxtaan wax nga ci kooru gàlle wooru gàlle yi nga doon woor mhm. ak ci eh, âge bi nga commencé woor mhm. ban woor woor yi woor boo xam te doo ko fàtte mukk boobu sonnoon nga see <laughs> woor nga woor gàlle waaw woor woor woor bas naa woor daal benn woor boo xamante ne dama koor ba ay deux heures mhm. presque dañ doon dàqi koor nag ñu doxi dem ba ñëw daal man daal ma ma ñëw ci kër gi xaw ma affaire bi lu may ndur ma tàmbalee mel ni kuy miir toog xaw a rey sama yaram bi na yaay daal kor gi dafa metti ama masa léegi mu jeex ma tëdd tëdd mënumaa nelaw mel ni heure bi day gën a yokk ma xool deux heures bi rombagul ma xaw a dugg ci biir néeg bi li naan maire yi ñoom dañ lay xam ma dugg ci biir néeg bi xaw a naan ndox ñëwaat rey sama yaram maire bi bàyyi ba dog jot mu ne ma yow yàq nga sa koor bu yàgg <laughs> ni nga dugg see ak ni nga génnee maa la bañoon wax di la découragé mais leer na ma ne naan nga ma ne ko instant moom damaa sonnoon mënu ma ci dara quoi boobu moom. Uh-huh. ba ni may waxeek ak yow su ñuy wax sax ci koor su ma xel day dem ci loolu noonu quoi vraiment. Uh-huh. Mm-hmm. général wax nga ko léegi wax dëgg yàlla duñu waxtaan ak yow ci li nga xamante ne moom mooy koor te dugguñu ci li nga xamante ne moom mooy ci làmb général lutte avec frappe nga def si ñaata euh, euh, lutte avec frappe euh, nga dugg si ban année. lutte avec frappe ah 2013. 2013 waaw 2013 laa ci dugg. yaa ma gën a xam ma def 12 combats. ñaata victoire. 9 victoire. 3 défaites. 3 défaites. général. ah ñi ma daan jarul ma leen di tudd ma Dia ndax ñi ma daan ñëpp man yàlla dogal na ni raw naa leen. Ah, ah xam nga sama première sortie des fois damay gis booy boo xam ne da ci commentaire di ci débat sama première sortie euh. xam nga nee naa leen ku xool sumay combat 2013 bu fekkee dugg nga YouTube xool sumay combat 2013. Mhm. ak instant bi di nga xam ni mhm. général mi doon bëre. Mhm. xale la woon quoi nee naa leen man damaa yokk benn at pour bëre. souvent yokk at billaay wallaay damaa yokk benn at pour bëre ndax moment boobu mbapatu banlieue bi dafa bëri woon ay violence gars yi dañuy jamante gaañante dem ba léegi suñu entourage suñu staff permettre ñu génn di mbapat ndax risque yi doon nekk. Mm. yow mu dara mën na laa dal mais des fois da ànd ak ay doomu jàmbur ñuy gaañ ci mbapat te loolu noonu. day xaw a day xaw a metti comprendre nga moo tax ñu dugg ci arène moment bi ñuy dugg ci arène suma premier combat laa bëri woo moom dama koy dégg souvent mu ci kii mais loolu wërsëgam la. daan na ma maa ngi ciy sant yàlla ndax yaakaar naa ne làmb jooju moo ma def mbër. yàlla xam na loolu année bi ma daanee ci laa bëre grand combat. wallahi azim Amina Sakho drapeau làmb ju mujjee tudd tëgg stade bu parcellement maa ko mujjee bëre drapeau Karim wàdd grand combat comprendre nga. kon yooyu noonu amul sens sant naa yàlla man jàpp naa ñi ma génération ndool ñi ma ci comme ñi nga xam ne yàlla dogal na ma bëri ndoog ñoom bañ am ci man ndam raw naa leen te ma du ma ci toog sax di ci di ci tudd kenn quoi. mooy loolu noonu. dama leen tudd de. bër nag bër nag bër ñan noonu daan agogo ak kan. non garaawul mais sant yàlla yow. agogo ak kan. billaay farma jam mooy loolu noonu mais man a ñoom yor nañ jikko boo xam te mbër ku ko daan mënoo fexe fexe ba mu sawar mais mbër ñooñu wax nga ko ñooñu ñoo def mbër mais ma tudd ko ci. Hmm. moom <laughs> wax rek. soo xewlee <laughs> dégg sax sa émission maa ko daan mu naan laajal général ma ne ko yaa ma daan kay loolu sant yàlla la. mais général ak kan ak astafurlah Agogo ak kan. non Fatma maa bëgg a wax loo rek. mais yàlla xam na ne ax ah, mooy loolu noonu. mooy waaw waay jaru ko coo jiwul waaw amul ragal. na leen bàyyi noonu. waaw amul benn problème. Euh, sëñ euh, Fall du ma ci may kenn promo di leen tudd <laughs> daan nañ ma anyway quoi. Euh, waaw noonu la demee nag yaa ma gën koy soog a def loo de mosuma cee wax sax. boobu ñaata xaw ma nag ah franchement parler ndax man. Mm. yàlla dogal na ni suma combat li ma ci am mooy da am combat am préparer mooy loolu yàlla xam na loolu. xaw ma ko woon fàtte naa ko waaw. Mm-hmm. mbër la. <laughs> Ah, man ba may dugg ci làmb kay laa gëm ni instant bi nii qualifié naa fu mbër di dugg wala lu mbër di am man dama ko war a am donte moment bi ma ciy dugg xale bu ndaw laa mais su gëm-gëm. maanaam dépassé na loolu noonu ndax man moom dama yàgg gëm suma bopp muy muy muy mbapat di di bëri arène comprendre nga des fois sax suma combat danaan daf ma daan yóbbee combat yu metti dem naa ba benn instant pour suma combat taxaw day metti ndax ndax ndax du yomb quoi ndax su ma ñëwee dama lay wan ni làmb ji moom amaana ndam moom a tax a jóg te nu ma ko amee baax na du ma la may dara waaw. dañ ko doon sax dañ ko doon dëggoon lu jëw boobu que ni lutte simple dañ ko doon favoriser que lutte avec waaw dañoo da nga ragal dugur général fee moo gën a nooy ndax fee koppar bi daal koppar bi bi mu fay gagné par ngoon gi la de mais de yàlla xam na ni ñàkk ñàkk bëri moo ma yóbbu lutte simple. comme ni ma war a bëree ndax suma première saison dama cee teg la am ci quatre combats deuxième trois. commencé naa imposé wu ñu ngi may bàyyi xel troisième bi maam deux quatrième bi ba saison bi tijjee lañ may utal combat ba fin saison benn combat la mujj am. yàlla xam na loolu dañ ma daan dañ daan wax mbër suma avance ñu dem ba dernier moment say mbokk ne la noo xooli leneen. boobu noonoo ngi toj simple daaw jéeg laa ci dugg. yàgguma ji de. Uh-huh. ñi bëri nag dañoo yaakaar lutte simple deux ans laa ci def. saison bi moo ci nekk sama troisième année. man waaw saison bi ñu génn mooy deux ans saison bii nii meilleur lutteur bi waaw saison bi mooy suma troisième année maanaam man dama ñëw dugg ci lutte simple bi mm. dama dama dama ci dugg rek fu làmb di am moom mat yenn samay bagage dem waaw looloo tax nag booy xool sax bëri na amateurs yoo xamante ne ci lutte simple bi lañ ma gën a ràññee que lutte avec frappe léegi nag ñu bëri dañoo yaakaar ni lutte simple bi laa gënoon a yàgguma ci dama dem ba sama combatteur ndax lan damay xeex ñépp loolu lañ doon wax da nga bëgg xeex da bëgg xeex dem ba su may combat du yomb pour moom combat mu day jafe ma ne comme maa ngi entraîné chaque jour benn fan bu ma toog bëréewu ma ko rek perte maa la xaaral ma dem ci lutte simple loolu ma dugal lutte sans frappe. Mhm. Mhm. lutte simple ñu gis ne général wax nga yàggoo fa. Mhm. mais dañu ràññee. daaw macha allah. ñu gis ni général di def feu et flamme. bañ na ko bu am sax jarul dañ naan jarul ñuy woote téléphone. Ah. moom moo gagné combat boobu mhm. mhm. ah, li ko waral mooy gëm suñu bopp rek xam ni maanaam nit ki loo xas ba nekk ba ba wane ci sa bopp ba foo taxaw ñu lay xoolee bët boobu rek war ngaa fexe kat ba li nga xamante ne ci nga nekk nga marqué ci sa empreinte ndax. comme yàlla dont nañu ñu doon ay mbër di entraîner chaque jour matin soir man dama jàppoon ni benn fan ba ma toog bëréew ma ko pertement la moo ma yóbbee nag mu dugal ci simple bi mais ba ma ciy dugg dugg ma ci pour ñëw di xool champion yi wala pour ñëw di no dama dugg pour am li am wala am lu ko raw moo tax làmb ju may préparé damay gëm suma bopp dem gëm ni ñi fa nekk ay mbër lañ ni sumay morom luñ ci def benn war naa koo def fukkam yemuma Dakar kese xam nga bu njëkk ba booy Dakar du ñemee génn ci àll bi mooy loolu man nag dama fee bàyyi dakaar dugg ci àll bi des fois fii sax day xew a kii ma dem dama daan dem ba ay côté jaxaaw siin ginnaaw Fatick jaxaaw siin di fa bëri ay mbapat dóor côté boobu ay mbapat dóor la ñuy ëpp lu ñuy def di ko fa def muy metti may juga ko dem dem ba moment bi suñ tëgee làmb suñ suñ ma gisee si rond bi xam nga suñ ma gisee ci ci biir dëkk bi rek gars yi punkal yu ba duñ ñëw wala am ñoo xam dañuy téye seen licence ñëw ba ci làmb ji bu ñu nee général ñëw na rek duñ bindu dem naa fa ay làmb yoo xam dañuy bëree lese yi bëree raw gàdd yi ba ba ba deux heures du matin ñu ñëw ne luur yi benn mbër du bindu mujj gi dañ naan ma dañuy dañuy bàyyi làmb ji ñu jox leen paas man leen du ngeen def loolu ma am ci ay problème préparé ñëw ba foofu ñu ne ma luur amul ndax gars yi ñëwuñu mais ñëw nañ dañ may gis daw dem ba benn instant nag luur yi fa nekkoon yëpp ma wàccee leen ne xaaral ma bàyyi foofu na du fa jeex champion yi champion yi fa doon ñëw bëri na de ay ay ñoom malem ñaari gaay foofu lañ doon lañ doon nekk ay ñoom tonoor bu jurbel xam nga gaay yi bu joon mbër yu mbër yu bëri fa lañ daan nekk di bëree mais damaa dem ba foofu su ma ñëwee mujj gi gaay yi mooy loolu noonu ma bàyyiwaat ko fa laalaat côté siin bi noonu laalaat ay côté Fatick jëm Kaolack affaire yooyu noonu fu ma dégg làmb am na damay tax su may bagage dem ndax jàpp naa ni mbër laa kon dama war a bëree daal parfois séeréer daaw non mhm. man man maanaam gisuma loolu ndax man suma dem làmb ak ay séeréer laay àndal bañ na ko ba dama ci am ay mbokk. Hmm. di profité ci occasion bi sax di ci nuyu suma mbokk yi ndax dañ may jàppale bu baax a baax a mais pour te dire ñun bu ñuy dem làmb. Hmm. day am ay séeréer yoo xamante ne ñu ak ñoom may ànd. comprendre nga xam nga mën nañoo bañ a dégg li ñuy làq mais tey jii nii doon ci mën a jëw ndax ñi nga xamante ne ñoo ñu jege loo ci wax rek ñoom xam nañ ko mooy loolu noonu. non am nañ ay séeréer yu baax yoo xamante ne vraiment ba nii may wax yow ñu ngi dund teraanga ñu ay nit yu baax ñoom gëmuñu loolu làmb lañ gëm. boo ñëwee am sañ-sañ am fulla man dama naan bëre ba pare nit génnee xaalisam may ma ne ma booy boo gëmee sa bopp amul loo mënta am ci simple bi ndax am nga fulla gëm nga sa bopp te ñun lii la ñuy wër yàlla xam na loolu mujj gi làmb day am dëgg tëgg làmb sax di la woo ndax di nga ñëw ñëwul ngir yàlla làmb ji neex boo ñëwul mooy loolu noonu kon ñooñu bu ku soxor mënul lool daal pour man mooy loolu man gisuma loolu quoi franchement parler. Mhm. général ma parfois doo xam nga. Mhm. suñu mooy mbalu saf yooyu noonu. waaw nga <laughs> dalaguma nag. te ah. góob ma dina ma dal ci làmb quoi ndax yaakaar naa ni. am moom rëg-rëg nga naan tay naan dégg nag euh, rëg-rëg xam nga day naan rëg-rëg day paqueté gars mm-hmm. noonu tay noonu man moom daray mbër mënumaa yéem ndax man gëm suma bopp moo ma sonal gëm suma bopp dama daan dégg sambion yi ñu leen ñu leen di wax fekk moment boobu sax dugguma ci simple bi mm-hmm. yàlla xam na lool mais yow dangay jéem a def la tout mm-hmm. pour jéem a bëkkanteeg ñoom ndax comme le fait que ñoom nee nañ ñoo fi man ñu ngi def lu ne danga naan non baal ma jéem a xool ñoom ñi ñuy wax ñoom ñooy ñan mais ñi ma ci njëkk a dajal amul ku ma ciy dajal di la sóoraale damay fekk nga taxaw ma ñëw imposer li ma yor. mbëru séeréer ñi ma ci dajal ñëpp ci mbëru simple yi. ku ma ci dajal duma ma lijjanti sa champion ndax mën naa ne maa ci mujjee ñëw bu ma ciy ñëw ñi ma ñi nga ciy tudd nii fekk naa leen ñu am ci seen turu bopp mais man maa ñëw imposer seen biir. Hmm. waaw dama ñëw imposer seen biir. waaw. non dara moment boobu fekk na amateurs yi di ko waxtaanee quoi ndax moment boobu moom nekku fi mais man maa ngi doon toj di gu ci àll bi di toj am ñu naan nag booy bi li tax muy neex leen sa fi nekkul bu sa waay ñëwee mbër yi ba sax damay dégg sa waay bu ñëwee bindu mbër yi duñ duñ bindu quoi dama doon dégg loolu. man yàlla dogal nag man après da ba ma compétiré ba sama combat arène des quinze jours dama aju woon pause bëre sama combat arène ba pare une semaine. ma nekk ci di toppaat ñi ma doon ñaanal ak mbokk yeeg yooyu saafante deuxième semaine mooy loolu noonu deux semaines laa toog dem bëri. léegi nag am na ñoo xam sax li ma toogoon noonu ñëwuma ñu ngi naan ah sa waaye ñëw gars yi mooy loolu noonu mais man amul problème man xam naa li ma xam bu ma ñëw yàlla dogal ñu daje. góob ko woon sax ndax moom dara dara yàlla xam na loolu sama gaa yaa ngi nii may àndal. nga mhm. man dañ ñun ñun nga boo dugg see di nga xam ñi nga bokkul pul bu ñu limee diw diw diw diw diw diw bu ñu leen di tudd dinga nga xam ne kii boo bëreewul ak moom deuxième combat di nga bëre ak moom troisième combat mais amul luñ ci doon bàyyi xel yàlla xam na loolu su ma gaa yi may àndal mën nañ maa seede bañ na ko ba ñun ba ñuy ñëw ci làmb ji dañoo jékki-jékki rek toog ba benn heure bi nii fekk armée da doon ñaanal yaayam ñu toog ci ñaan gi ba benn heure bi rek ma génn ne gaa yi leen dem compétir yi ñu ne ma yow sooy dem làmb ko préparé génn man leen non tey jii nii ña toog naa deux semaines yu ma bëriwul simple beneen semaine bu ma toog bëriwul ma ko pertement la nañ leen dem bëri ci gaane ma ma leen waaw ñu dajale bagage yi dem. yàlla xam na ni bàyyi ma ko sax xel. billaahi wallaahi ba may ñëw yëgu ma ni sax ñoom ñu ngi fa. non man nekkuma ci yooyu di dem ci làmb di sóoraale loolu moom bu ma ko naree def fan ma yàlla xam na ne woo sumay mbokk xool yi leneen quoi aw ma benn mbër boo xam ne dinaa la sooraale ci làmb daal. mais non gars yi xam nañ ma quoi gars yi ñoom mënuñoo mënatuñoo am pression ci làmb ndax ñun àndandoo nañ fu ne dem bëre fa mbapat génneel nañ ñu façon lu ne bëre nañ mbapat ñu dóor ñu ci ay jaas yi xeex nañ ci ñun làmb mënul am pression ci ñun ndax dañ daan dem mbapat fekk la sa biir koñ ñu war a bëre ñu wan la ni li ngay sàkku ñun ñoo la ko gën a bëgg. garaawul mbër moom mënuñoo dépassé gaw ma ni man toll naa fu ma mbër di yóbbee pression ci làmb quoi xalaatuma ko. ñu daje ñun ñaar bëre ah, ma ñëw wan ko ni man daal bëree ma tax a jug bëre laay def sa kaw. Mhm. waaw vraiment yéem na nag ñu bëri mais dama leen bëgg a xamal ne ma bëri daan ko cuul yu bëri man ma ne leen nag man gëm naa ni war na mën a daan keneen ku dul moom tamit. bu dee dëgg la ah ndax ay xale bu ndaw ngay entraîné chaque jour matin soir ah ko xamante ne daa ne ma sëñ bi comme laa mëgg a bëgg demal toog nii loo bëgg ma defal la ko daa lool la ma doon wax barki yeneen ti yàlla Muhammad lii nii nga bëgg demal toog nee fekk maa ngi doon liggéey mu ne ma lii nga bëgg demal toog nee loo bëgg ma defal ko xam nga ni punkal mi ñu jot ci kër di la jox ngay lekk chaque jour matin soir boo defu résultat dañ laa war a duma bu dee dëgg la loolu ñu yóbboon nag jàpp nañ ni suñu morom bu ñu dajal moom dañoo war a dal sa kaw mu jeex dem na sax ba am ay amateurs yoo dañ may mere ci loolu yow général lu tax booy bëreeg sa morom doo ko jox li moom doo ko tey ma ne non non du question ñàkk jox li moom li ñuy daj ak gëm suñu bopp jàpp nañ ni li ñu yor képp kuñ ko wàccee sa kaw résultat daa war a am bu dee dëgg la. Mhm. Mhm. boobu fekk na Reug mhm. Reug waaw Serigne Ndiaye daje nañ. Adrien Senghor mujj nañoo daje tamit final arène nationale ba muy soog a ubbi saison ren bi paase saison ren bi waaw. mu am ci man ndam. Ah. waaw. mu am ci man ndam Adrien Senghor mu am ci man ndam fële tamit. ah waaw mais lamb la de ñun moom dañuy daanante rek mais yàlla dogalagul ma daan quoi. Mhm.